am amwaati yàllaahu léexut hmm. te jumlata waaw maa leex tar tamit minan ni waaw xam nga yàlla ku mu tànnal rek sa lépp baax hmm. Hmm. waaw yàlla bu la tànnalee parce que yàlla moom lépp waaw yow yàlla nag mboolem li nga xamante ni nii moom nga ma tànnal ci xeetu xéewal moom nga ma wommatal jox la waaw yow yaa ma tànnal maanaam li ma wommatal ci xéewal mooy li nga ma tànnal waaw léeg-léeg sax dañ ñaan ci ñaan yàlla na ko yàlla jox lam ko tànnal waaw loolu ñaan moom nag loolu lay wax sunu borom ni ko nag bi nga ko defee ci laa nekk nag ndono. Mhm. man maay donow maanaam ñiy dund ak ñafaatu ñëpp. ndax yow yàlla yaa ma tànnal. may noonu lay waaw may seen dono waaw. may seen wiraasa bi nga xamante ni maa gën a rëy. su ne sëñ Tuubaa patrimoine la ci ñuy dund ak ñi faatu. Mhm. waaw patrimoine la ko yàlla def nga xam ni tey ñëpp ay dunde sëriñ bi. Mhm. mooy mooy mooy patrimoine bi gën a rëy. mooy sunu wiraasa bi gën a rëy. waaw loolu nag il faut ñu xam ko. ndax yàlla moo ko tànn jox nu ko mhm. waaw yàlla ko def muy sunu wiraasa bi gën a rëy mhm. xam nga fi mu ne nii li indi ci eh, réew mépp coow mhm. mooy lànk rek ci lu yàlla dogal waaw lànk rek ci lu yàlla dogal sëñ Tuubaa mii <laughs> ak lii ko yàlla jox ak mii mu mel nga xam ni amul benn amul foo mën a jam sëñ bi déedéet déedéet waaw doo wax ci njàmbaar doo wax ci aw fit doo wax ci bëgg yanant bi doo wax ci ñàkk koo tagg doo wax ci sàggane julli doo wax ci sàgg sàggane sunna doo wax ci bëgg lislaam doo wax ci fonkul alxuraan amul benn côté benn aspect booy xool sëñ Tuubaa rek te doo ko nag kooku nan nga mën a nekkee jullit te doo ko bëgg kon da ngay xam ni defaroo ko waaw su wiraasa bi gën a rëy mooy sëñ Tuubaa yàlla jox na Sam Mbaye radiyallahu anhu daana ko wax waaw yii nga lim la lim ba mu yàgg mu ne ko ko bañ loo koy bañe loo koy bañe parce que bu dee da nga ni jullit laa man alxuraan laa bëgg mhm. ñun la sëñ Tuubaa fi mu jaar ak alxuraan mhm. nga xam ne tey aaya boo jël saar woo jël tëgg mhm. da koo gëm a gëm a gëm ba boo fekkee sëñ Tuubaa ni waxee yonent bi da nga dégg ku gëmee nii nii da ngay gis fi mu teg yanant bi ndeysaan àgg ci naan ko dee nga yow yanant bi sa ndiggu tànk ak a neexoon nga teg ko ci sama lex bi di ko raay di ci joggi mhm. aka neexoon ma nekk ci sa sa deret mhm. aka neexoon ma nekk sax dàll wi ngay sol ak a neexoon nga teg ma def ba sa jaam jaamaat xaddi wi xayatu li rijjil mujtaba min shawkatin wa maa yudaahil aqraba gis nga yooyu yëpp ah eh, ndeysaan xaddi jaaltuhu turaban naali yaa layta la abani bi fadlihi ay xeeti wax yu garaaw a garaaw yoo xam ak yaram nga gis mahabba bi mu am ci moom mhm. ay doomam ak dëkkam ak mhm. léppam jaamu yàlla mu def na ko fi daal da ko jote bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mhm. te xool fi mu teg yàlla nga xam fi mu teg yàlla mhm. ak ni mu ko doon jaamoo ak waxtu jot ak njàpp lu tooy xipp mhm. ak circonstance bu mu ko fekk mhm. dëgg la nga xool ni mu taxawoo nit ku ñuul nga xam ne ñun mësuloo am kenn ku taxawal dara dañuy toppare mu dikk taxawal nit ku ñuul tey ba fépp ci àdduna bi nga mën a siggi lépp ci turu diine l'islam waaw kooku noo ko mën a contre dëgg gis kuy mën a tey jii ci réseaux sociaux yi. Mhm. boo nee daray sëñ Touba bala ngaa àgg la ñuy tekki suuf. Mhm. Mhm. dëgg la dëgg la taarkaala dëgg la <laughs> dëgg la xam nga xam nga sama sama soppee nekk tubaa ñoom sëñ Mamour Guendé ñu ngi leen siyaare say saar sëñ sëñ Mouhamed Mbacke. Eh, eh, dañuy gis yenn saa ay vidéo commentaire su ko defee bu ñu commencé ma ne leen lii ak liggéey bi noo ànd. sëñ tubaa boo koy liggéeyal. da ngay wuti ko compte bu noppi door a tàmbali. waaw ah. ndax mooy doon sedd sa ëllëg. dëgg mm-hmm. lii moom ay taw feex la. Eh, sëñ Malick bala noo tàmbali dama lay bàyyi. Eh, soxna Faat neen daa bëgg a yeewee ko waaye yow mënu ko yeewee ko borom foree fa. <laughs> Eh, moom xam nga sëñ Ablaye. sëñ ma nga ca foree fa sëñ Modou Ndiaye. Mm-hmm. kilifa la fa. Mm. Eh, tubaarkàlla eh, xam naa ne war naa war naa daanul sëñ Ablaye lu baree baree bari ndax man mm. xam naa la xam naa la baax a baax a baax eh, ñu ngi sant baax na ci teewaayam ci plateau bi mm. tey ndax taalibe Cheikh bu jóg ñëw siyaare si seetaan si émission bi ànd ak sëñ Xaadim lu ñu bégga la lool wax dëgg yàlla lu ñu bégga la ndax wane na rek ne li ñuy def nun ñëpp ñoom xam nga mag ñi amuñu woon problème mm-hmm. dafa am ku ku doon wër mbiru xutbaan ya ba mm-hmm. ñëw ci sëñ Tuubaa di ko tudd ay nitu bi mu nee ko mhm, mhm. dama am ñeent ñu sama xel jàpp ma la doon laaj ku nekk loo xam ci moom sëñ Tuubaa ni ko bisimilah mhm. mu ne ko alaaji Maalik sëñ Tuubaa ni ko rajulun yaxaafullah ko jëmm la joo xam dafa ragal yàlla xoolal boobu boobu bu rëy ñu ko rajulun yaxaafullah jëmm la ju ragal yàlla kooka daal ni sëñ Tuubaa seex Siidiya Baaba sëñ Tuubaa ni ko rajulun yuhibbullah jëmm ci bëgg yàlla nga mu ni ko seex na seex saadu ab yi sëñ Tuubaa ni ko rajulun yuhibbuhu llaahu jëm ju yàlla bëgg nga mm-hmm. mu ni ko yow nag Cheikh Ahmadou Bamba mm-hmm. mu ni ko rajulun lam yaasillaa muddatu umrihi fa jaaluhu llaa xaadima rasuli wa kafaaw mm-hmm. mu ni ko jëm ju mustafa yàlla nga ko yàlla def ko xaadima rasul ni ko loolu doy na ko <laughs> dëgg la waaw fii la mag ñi nekk dëgg la sëñ Malick ma bàyyi la nga yëkkatal ñu ay bayit eh, la tànk sañ daam deeg si ñu indil eh, vidéo bi Euh, ñu sëñ Ablaye commentaire ci sëñ sëñ Ablaye bëggoon naa euh, xam naa xam naa xam naa xam naa xam naa ne tey waxtu wi jege na waaye damaa bëggoon bala moo jeex nga barkeel lu ma ci kenn muy sëñ Aliou Diouf Lambaye xam nga sëñ Aliou Diouf Lambaye histoire ak sëñ Mor Mané Mbaye seen seen histoire dafa doy kéemaan ndax dañu tayle seen bakkan ci xupp yu ñu leen doon xupp waaye seen pas-pas ak fa ñu teg sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo warul na ko sëñ mu saaka waxee woon. Mhm. ñu ne ko ñu ñu ñu ñu folli la tey tekki sa ndombog tànk. Mhm. moo gën a wér lii nga wax noo lànk. Mhm. noo lànk nag dafa garaw te loolu lu ñu war a taxaw jàngat la. ca jamono booba ca jamono booba. moo tax ma bëggoon balaa bu sëñ Malick Daniel sëñ Blaay loo ma ci barkeelu rek. Eh, bokk yi danañ ko mën a jëfandikoo. tey nag waa Lambaay damaa bëgg nu xam ni. signalé wu sëñ Tuubaa woolu na ko mu ñëw mu ne ko damaa am ndigalul wargal la. waaw sëñ bi loolu yombul. muy warga lu ko sëriñ bi jox mu mu sotti ci biir mu ëmb ko du naan. sëñ bi ne ko ah kaas yi ma lay jox mu ne ko damaa bëgg su ma demee topp làmbaay teen bu ne ma cof tàbbi ci biir ñu naan ko ndax ñu defaroo. sëñ Babacar Ndiaye Cargaan. te ñoom ñett la sëñ bi woloon wolondoo lan moo waral loolu. yéene nañ tund wa baax. ñu ñëw sëriñ sëriñ bi waxuñ seenu doom ak seeni njaboot. Uhuh. waaye la ñuy xool mooy tund wa jag ndax booba nam meloon ci dafa jéggi woon dayoo. suñ tubaab defar noonu ngay mel sax moom. dëgg la maanaam doo euh, euh, Daba. Mhm. moom sëñ Mouhamadou Ndiaye San. sama mhm. turandoo. Mhm. dafa dem ci sëñ mel Razak men. doomi sëñ Darou San la. di waxtaan ak moom ba àgg ci yowmal xiyaam ak yu mel noonu. mu ne ko ah man de bàyyi. man bu bu yowmal xiyaam bu ma naa àjjana rek mu daa sant yàlla. mu ne ko ah roqee acam murit bu ne mhm. waaxu dugg ajana loola gàcc la ci moom da ngay tax buntu aja dugal mbooloo mu bari dugal mbooloo door a dugg yow door a dugg <laughs> wax na ko dëgg ndeysaan tubaarkàlla kon sëñ Malick euh, bismillah balaa sëñ Ablaye ñëw ci signal yu Diouf en attendant sëñ Dame Dieg si bismillah yaqul ahmadul amin muqaddim xayril anami ahmad alhaadil karim amdan li rabbi al ali rahman من جاء بالإسلام والإيمان ثم الصلاة والأدنان من جاد بالإيمان والإنسان من فضله في المرسلين ثبتا وبكتاب العزيز قناتا والي علي التقى وصحبي وكل من قد جاموا من أنبيه هذا وين اليوم توسلي بصور القرآن وهو منسلي سميتها منور البنيان معلم الجهال والأميان إني توسلت إلى رحمن خالقنا بصور القرآن بدأت بالفاتحة المعصمة وسورة البقرة المكرمة والإمرانة وبالنساء أجارني الله من الأسواء ولا نلاخ ما يسوء أبدا بجاي من رب الأنام أبدا بجاي خير الخلق والأصحاب في نفع الأعسال كذاب رمان هذه أمة الهادي الأمين وهب لنا ما نرتجي في كل ووالد الخديم أبلو منا والي فوق كل بنيان بنا وابلنا ما نرتجي فيه فأنت عالم بما نخفي وبمن أفيز الثاني ساما الإيمان والإنسان والإسلام واغفر ذنوبنا ولرب من قد قرأ منا أو كتبا ثم صلاة وسلام سرمدا الذي في مذنبين مدى وليل التقى وزهباء وكل من خدع مؤمنا به سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين image boo xam ne sëñ Sidi Muxtaar def na ko sëñ Dame bu dee bu saas Alioune Sall bi noppi na mën nañ ko teg su ko defee sëñ Ibrahima mën cee commentaire ndax euh, bëgg naa sëñ euh, sëñ euh, sëñ Malick laaj ko tuuti ay laaj ndax xam naa ne émission bi li ci des néew la waaye terewul rek ñu def ko ñu def ko ñu def ko yëfi yëfi américain tubaarkàlla ñu àndandoo ak waari si kon déglu Cheikh Seydil Muxtaar ci kaddu yu am solo yoo xam defoon na ko ci discours sëñ Ablaye sëñ Seydil Muxtaar dafa nekk nit ku markan ci àddina dafa nekk ku réussir itam mission sëñ Muntaxa mii te yàlla na fi yàlla yàgg yàggal ko fi loolu te mu wér mës na koo wax ne ko su ma fi suñu borom naree jëlee su la fi na suñu borom naree jëlee na na ma fi jëlee man mës na ko koo wax ci taxawaay bu am solo ak pas-pas waaye e, noppi gi ak tekki gi ak jëf ju rëy ji loolu jàpp naa ne dal gi sañ jiili dal gi ne tekk te lijjanti lépp nga xam ni e, am na loo xam ne su ko nit su ko nit su ko nit sañee it ñemewu ko <laughs> waaw am na loolu su ko nit sañoon itam ñemewu ko yal na yàlla suñu borom dolli ay leeram euh, naan na doon teewlu discours bu am solo boobu dellusiwaat ci plateau bi. mooy borom Touba dugg leen taxaw déglu lii may wax borom Touba. bàyyiwu ci dara bàyyiwu ci dara. li ñu li ñu ciy teg nag moo di rek. li ñu ciy teg nag moo di rek. ñu fas yéene sax ci ak taalu bi. ñu fas yéene sax ci ak taalu bi. tañ nangul na ko. tañ nangul na ko. doxañul ko mu àggut. te na ko fu mu àggut fu yàq àggut fu yàq àggut te itam te itam fas yéene lu fas yéene sax ci jaamu yàlla sax ci jaamu yàlla te liggéey te liggéey xam ne te xam ne ku jaamuwul yàlla ku nekk ku jaamuwul yàlla ku ne jaam bu saa gërëm jaam bu saa borom gërëm moo lay rammu ëllëg moo lay rammu ëllëg ku liggéeyut ku ne ku liggéeyut ku ne da nga jëppee da na la jëppi def na la jëppi salaamaaleykum. kon asalaamaaleykum. loolu rek moo doon wax ji. loolu rek moo doon wax ji. ñu ngi leen di dénk nag. mu ngi leen di dénk nag. dénk sama bopp. di dénk bopp mu ngi leen dénk di dénk boppam. ngeen fas yéene sax ci suñu borom li. nu fas yéene sax ci ndigalul suñu boroom li. te bàyyi tereem yi. te bàyyi tereem yi. tey bàyyi tereem yi. tey bàyyi tereem yi. ngi ñaan itam. mi ngi ñaan itam sëriñ bi nee na mi ngi ñaan itam. li nga xam ne. li nga xam ne. moo xew ci jamono bi. moo xew ci jamono bi. tariixa yi. ci tariixa yi. loolu laa bëgg mu jóg fi ba set wecc. loolu la bëgg mu jóg fi ba set wecc. ndax lépp. ndax lépp. lenn la. lenn la. alaaji alaaji maam alaaji Malick. ndax moo maam alhaaji Malick. Serigne Touba. ak Serigne Touba. jenn jëmm lañu. jenn jëmm lañu. ñu leen a xàjjale. ne su leen xajale xàjjale. ku leen xàjjale. ku leen xajale da ngay dem ci gott ba rek. da ngay dem ca gott ba rek. xàjjiku dem ca ba rek. xàjjiku dem ca gott ba rek. te gott ba ba. ay gara nga fa. ay gara nga fa. foofa rek nga jëm. kon foofa rek nga jëm. bëgg a xàjjale foofa jëm. ku bëgg koo foofee nga jëm. kon. kon. liñ ciy teg. liñ ciy teg. ñu ngi leen di neel. liñ leen di neel. mook Serigne Touba. mook Serigne Touba. Alaaji Malik ak Serigne Touba liñ leen di neel. te. te. ku baax ku baax. ku baax. waxuma waliyu. waxuma waliyu. ku ko neel. sawara nga jëm ëllëg nga jëm ëllëg. ku ko neer rek. ku ko neel rek. sa gimiñ sa gimiñ dañ ciy sol beteex nga dekkaale ko. dañ ciy sol beteex nga dekkaale ko. nag loolu lu mat bàyyi xel la. nee na loolu lu mat a bàyyi xel la. loolu fi ma ko teg. loolu loolu fi mu ko teg. damay dégg ñaare. day dégg ñaare. ñu naan tijaan yi dañoo bañ murit. ñu naa tijaan yi dañoo bañ murit. loolu nekkut. te loolu nekkut. buñ ne bu buñ ne tijaan. yëpp dem Tiwaawan. xel yëpp dem ci waawoon. dem ci maam Alhaji Malick. dem ci maam Alhaji Malick. kon nag. kon kon nag. bu ñu neelee loolu. bu ñu neelee Alhaji loolu. te waxu ko. te waxu ko. te waxu ko. te waxu ko. moom diggante ma Serigne Touba. ndax moom diggam ak Serigne Touba. dara doxu fi. dara doxu fi. Serigne Touba itam. Serigne Touba itam. buñ dee wax. buñ dee wax. dañoo bañ murit. dañoo bañ murit. Serigne Touba lañ bañ ndax Serigne Touba mooy yoon Serigne Touba moo tax ñu naan murit. da sëñ Touba lañ bañ ndax sëñ Touba moo tax ñu naa murit kon nag moom nga ko neel. kon moom. moom nga ko neel moom. kon moom nga ko neel moom. nga ko neel. moom nga ko neel. loolu rek ma ci waxoon sànq. kon nag waliyu. loolu ma ci waxoon sànq rek. kon nag waliyu loolu ma ci waxoon sànq. rek mooy li nekk. mooy li loolu mooy li nekk. kon nag. képp ko daa wax. képp ko daa wax. na ko tuub. na ko tuub. ñi ko waxut itam. ñi ko waxut itam. waxati mukk. buñ ko waxati mukk. buñ ko waxati mukk. ko wax buñ ko waxati mukk. ndax sëriñ bi. ndax sëriñ bi. Alaaji moo ko Alaaji Malick. ñoo bokk bokk seen bokk. ñoo bokk seenu bokk. ñoo bokk lislaam bi ñoo bokk lislaam bi. ñoo bokk diine ji. ñoo bokk diine ji. ñoo bokk waxtu yu juróom. ñoo bokk waxtu yu juróom. ñoo bokk weeru koor. ñoo bokk weeru koor. ñoo bokk xaj makka. ñoo bokk xaj makka. amut teqalikoo. ko teqalikoo. amut ko kon nag loolu rek. loolu lañ bëgg na xamal. moom la leen bëggoon a xamal moom sëriñ bi. ngeen bàyyi ko xel. nan ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. jërëgeen a jëf. sant nañ bu baax nag. nee na bi nee na sant na bu baax. boo yeboo itam. boo yeboo. na boo yeboo itam. seen xel dal bu baax a baax a baax. seen xel dal bu baax a baax a baax. ndax. ndax. am na lu sëriñ bi def. am na lu sëriñ bi def. loo xam ne lii. loo xam ne lii. war naa dalal seen xel. war naa dalal sunuy xel. te waxtu wu nekk. te waxtu wu nekk. mu ngi rot ci man. mu moom. kon nag. sax ci ndigalam rek. nan sax ci ndigalam rek. tafas yéene bàyyi ay tereem tafas bàyyi ay tereem. te xam ne loolu yi. te xam ne loolu yi. moo ñu ko defal moo ñu ko defal. jàmm rek ka fi am. jàmm rek ka fi am. jàmm rek ka fi am jàmm rek ka fi am. tey ak ëllëg des na ko benn laaj Mbàkke. waaw. yaa man ajaaba fi sanni daa Eh, xanaa dama koy neexal mu noppi sax waaw kay tàngal baax tàngal baax na ci baat. ay waay waaw kay leen <laughs> ñu ngi koy filmé kay. filmé baax na tàngal bëggee. Eh, ndax moom kay ci kanam du ko dem ci bi fekk fa loolu waaye njàng mi de Oustaz Mbaye Oustaz Mbaye yërmal Sénégalais yi lay déglu. Oh, bàyyi ñu xel ñun say nawle lañ <laughs> li metti na lool ci ñun. waaw Oustaz waaw. la akhiriya. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. introduction rek. mu jax bismil ilaahi ñu ne waaw. Hmm. mu ne hmm, yéen cey su ma ko doon firil su ma ko doon léebal sëñ Mbàkke di ko ko mhm. misaal mhm. dañu naan dafa am ñeenti kaat kaat yu gaare ci buntu kër gi mhm. ñeenti kaat kaat yu gaare waaw hmm. léegi occasion lañ koy jaay hmm. ñeenti kaat kaat yëpp hmm. boo amee million am leen waaye nag comme il est onze heures trente-quatre su midi du ko jarati day gën a yokk su ma ko su mu dee. waaw li seen morom lay jar lay jar. Hmm. Hmm. nga daan <laughs> ah. Hmm. ay Mbacke fooy jëlee 4 millions. <laughs> waaw ndeysaan rek suñu Abdou Mbacke daal ne asalaamaaleykum Mbacke ngi fi. wallaay Mbacke bala nga ne waaw mu ne 5 millions yi de. yow laa ko doon indil. waaw matal na. jaar na waaw damaa dama koo xalaat rek. da ko mat très bien. <laughs> sëy. waaw ah. loolu loolu kon moom la ñuy déggee ci bismil ilaahi yan moolu jeex na bismil ilaahi yi mooy yaa ngi xalaat na fan lay jëlee 4 millions yu mhm. yi may jënd ak oto bi mhm. yan moolu waay mooy suñu Abdou Mbacke ak na jox la 5 millions mhm. léegi nag bilaa ma naay wala tiyaay ab li tilaa maara laa nangam nag ba mu begg yëpp foofu yëpp yëpp mu jeex ndeysaan <laughs> wallaahi léegi nag ci biir nag uh-huh. mu ne yaa man ajaaba tey man istajaaba habil ijaaba fi san ni daay seetama lii rek oh seetal oh. lii loolu daa mel ne ak ñaan la oustaz. waaw parce que hablil ijaaba fii sanni daay. waaw yaa man ajaaba. waaw yow mi nga xam ne yaay wuyu. waaw man képp koo xam istijaaba nee na la wuyu ma. Mhm. man mi kon hablil ijaaba. wallaay. fii sanni daay lu ko jiitu nag def na ko jawwit zakaa yi. bëgguma laa ñaane li la ma li la gaa yi daan ñaane. waaw dama la bëgg ñaan lu la kenn musta ñaan. dëgg la parce que. ngeen dal di xam ne borom Alioune Sall ñu di ko ziar baax ndeysaan eh, day ñëw ci télé bi lu bare bare bare bari ngir xam ne këram la mm-hmm. eh, sëñ Mbàkke si la maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye sëñ Ablaye dafa dëggal liñ doon wax léegi ci ñaan yi mu doon li sëñ bi di def suñu borom ci ne nee na bu ne woon bismillaahi na yéen muluwaay rek doy na fa mm-hmm. ndax introduction bi rek mm-hmm. doy na sëkk dañuy ñëw ci titrage yi ñu doon wax waxtaan sànq ci naa naafiya fii ma daa ee saafir waaw lan nga ci commentaire rek xam nga firi bu rafet la ko firi mhm. Mhm. ci ñi dégg balaa ko xam nga bismil ilaahi yan moolu mhm. xaay ñu daa wax ne bi ma tàmbalee ci yàlla rek ci la may yi commencé doon dama tàmbali ci sama borom rek waaw bismil ilaahi rek yan moolu xaay samay may commencé di doon waaw loolu la la bëgg a wax nag ni la su la ko doon misaal tey jii mu ngi doon ku doon lijjanti un million rek ñu ne ko heure far ñu nuyu ko far ko nga xam ne tey li waroon a jafe. Mhm. moo far yomb yombin woo xam daa àndale mbetteel. Mhm. waaw pour wane ni kon ci yàlla rek a jar a nekk. Mhm. sëñ bi wane ni man daal bi ma duggee ci yàlla door rek laa def. may yi commencé tuur. moo tax mu ni jaratul ñu dolli leen loolu rek doyoon na ci woy yi. bismil ilaahi rek yan moo lu xaay. te may yàlla yëngu fenn. mu ngoog yàlla boo tàmbalee rek. mu commencé laa xëpp ay xéwal. boo ca saxee nag dootoo tàqali ko xéw. mu dem nag yow yàlla mi nga xam ne ko la woo. naa la. jox nga ma xéwal yoo xam amatul jeex. Mhm. kon du ma wërati fi kenn du ma dem fenn ci yow rek laay farto mhm. waaw c'est que bu rafet la ko firi boo xam ni mhm. maanaa bi la indi. ndeysaan waaw moo tax mu indi ko ci. quatre quatre interdiction bi ndeysaan jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop Bichri. Eh, xam naa si Aliou Diouf moom sëñ daam dañ koy leb ba àjj ba ji di ñëw. waaw danañ ci dugg ci lu yaatu nag incha allahu taala maa ngi doon bëgg a dugg sax ci Cheikh Abdoulaye Dieye yal na ko yàlla yërëm te dolli ay leeram